asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokk jullit yi bokk taalibe yi kenn ku ci nekk noo ngi lay nuyu ci sa tur ak sa sant waaye nag ci ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalifa sana kullu murit saahibul fadilati ah am nañ ndigal ci sëriñ bu tedd bi muy sëñ Mountakha ana lan la ñuy teg premier pierre bi nga xamante moom la ñuy teg mun zone industrielle bu Touba Mosquée nga xamante ne ñu ko jiit mooy kan Baye Ass Jaxate mi toog ànd ak daam jaxate mi ak sëñ Mountakha kan sëñ Aliou Diouf mi ngi nii toog ak Baye As jaw mi ngi nii toog kon zone industrielle la ñu war a teg xeer yi fan lañ koy tege fii ci yoonu euh, euh, autoroute Ila Touba bi foofu lañ koy tegee kan ci suuf si nga xamante ne ma suufu bayti foofu lañ koy tegee mi ngi nekk rek cent quarante six hectares moom la doon nu war ko def zone industrielle boo xamante ni bu nu masaana dem ndakaaru di wuti diw wala nu wuti leneen wala nu wuti ay usines yi nekk ndakaaru yëpp lañu ñu bëgg a demal benn zone industrielle bu mag fan lañ ko defe fii ci Touba. asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki Sénégal yi ñu ngi leen di nuyu nuyu boobu ñu ngi ciital suñ suñ Mountakha Bassirou xalifa général kullu murit ak ndawam li nga xam ne mooy suñ Cheikh suñ Cheikh Bassir Mbacké moom suñ Abdou Khadir ah woote bi nag woote jàmm la. opérateur économique yi ne ci département Mbacké ba Ndakaaru ba bitim réew ñoo leen di woo li ñu leen di woote nag bala ñu ko wax di leen wax liit li ñuy woote mooy lan dañu fa am zone industrie boo xam ne bi dañ ko bëgg a taxawal Touba mébét mi nag yàgg na ndax ke Serigne Saliou Mbacké la bàyyi ko woon ñu wëlbati ko waat ñëw gi Serigne Mountakha na ko dañoo bëgg ab zone industrie bi mu ko mun Mountakha xam ne loolu day sàllaaw kilifaam gu baax ga waxat na ko te xam ne dëkk na àgg foo xam ne fii mënu faa ñàkk dëkk mel ni dëkk Serigne Touba nga xam ne adduna bépp ñooy dem di fi si ndax foo boo toogoon ci Touba fu waay mën a ne ci adduna di yor ab matériel di ko jaay dana ñëw Touba. ñooy nag gannaaw noonu la Touba mel ci am na so am na am na loo xam ne lii jafe-jafe la ci commerçant yi opérateur économique yi ñu ne kaw ñu barab boo xam ne bii opérateur économique yëpp ñu fay bokk di daje bu ñu waxee seen industrie ku nekk xam na ne industrie mooy mooy mooy ndey ja waaye boo buñ la xoolee ñëpp ci lañ bokk ndax opérateur économique ndax fii ñu toll bu fekkoon da ngaa jógee Ndakaaru yor sa juróom fukki conteneur wala cent conteneur doom foo ko wàcc ñu bëgg zone boo xam ne bii nag boo jógee Ndakaaru ci ba nga xam ne da ngaa sart bagage bu ne ci bato bi su départ da ko def directement Touba fi nga koy dee dédouaner fi ngay def lépp dédouanement bu indi sa fukki téeméeri conteneur bu la neexee nga wàcce ko ci dépôt bi di ko di ko dédouaner benn fukki par fukki ba këram yi jeex. ñu ne loolu jàppandal la ci opérateur économique yi nga xam ne ñu ngi ne moo tax ne biñ ko biñ ko xalaatee boo ko bi sëriñ bi rafetlu ko lool ñu wax ci ak président mi ne loolu lu mën a la lu mënu la ndax Touba mbir dëkk la boo xam ne bi bu fekkee da ngaa génn Ndakaar rek Touba nga ciy teg moo tax opérateur économique yi nekk Touba yëpp dajaloo def def benn say bëgg a zone boobu ñu taxawal ko ndax maanaam xeer bi dañ ko teg bëgg nañ buñ ko teg Sëriñ Mountakha mooy léemu xeer wi jox ko président mu teg ko ñu bëgg nag taaliba yi yi nga xam ne sëñ Tuubaa lañu yaakaar julit yi nga xam ne suñu borom lañu yaakaar ak kuréel jul ak kuréel nga xam ne opération économique ci ci opération ngay dund ñu ngi lay woo fii ci Touba nga ñëw ci bis boobu soo ñëwee maanaam fekk tegu xeer ba te ñaan mu àgg ci barkab sëriñ Tuubaa sëñ Mountakha mi nga xam ne mii moo ko teg yàlla nañ ko ubbi ci kanamam ci ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru ci ci weeru ah, ah, ah, rak ñaar fukki fan yi lañ koy la vingt lañ koy teg fii ci Touba ñu bëgg fii ci Touba ñu bëgg ñëpp ñëw bu kenn manqué. ñoo ngi woo suñu mbokk taalibe yëpp di woowaale aussi euh, citoyen sénégalais yëpp parce que Touba du nun taalibe yi rek euh, ndaxte boo seetloo ci wàllu industrie wàllu commerce ñëpp a ngi ci bokk donc ñoo ngi woo sénégalais yëpp di woo patronat sénégalais bi di woo aussi fi ma bokk mooy l'association des promoteurs sénégalais di woo aussi les investisseurs sénégalais d'ici et d'ailleurs pour ñu mën a ñëw fekk si bis bi nga xamante ni ci la ñu teg première xeeru zone industrielle bu Touba. boo xamante ni président de la république Macky Sall moo ko fi teg ak bu soobee Serigne Touba Cheikh Mouhamadoul Mountakha khalife général des Mourides ak porte-parole Cheikh Mouhamadoul Bachir. kon ñoo ngi ñaan mbokki taalibe yëpp ak fu ngeen mën a nekk ci Sénégal bu ngeen ko mën a ba jaspara bi le 20 décembre ngeen ñëw fii euh, ni ma ko waxoon léegi tuuti rek. sëñ mun Mountakha dafa bi mu fi toogee ñaar moo doon yitteem moo di d'abord l'éducation de la population de Touba mooy les écoles les universités waaye nag dafa am loo xam ne daf ko xalaat mooy waa dëkk bi am am xëy ndaxte Touba bu ñu seetloo yàlla mbala am xëy amu fi euh, loolu xalaat bu mel noonu rek moo taxoon moom ma jox ñu ndigal man ak sëñ As ak ñi ko bokk ñu góor góorgóorlu ci loo xam ni xalaat yàgg na fi am ñu def ci pësteef ba taxawal zone industrielle bi dina mën a permettre chômage bi wàññeeku Touba dina permettre aussi commercant Touba yi nga xam ne ñoo fi nekk la ñuy dédouaner port de Dakar ñu mën di dédouaner fii dana permettre aussi industrie yi nga xam dañu nekk ci bitim réew muy Dubaï muy Paris muy fu nekk ñu mën a ñëw installé wu zone industrielle ñoo ngi leen di ñaan yéen ñëpp ci barke Cheikh Mountakha yéen ñëpp ngeen taxaw bu kenn manqué luñ fi def rek Cheikh Mountakha lañ koy defal. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu maa ngi tàmbalee sama nuyoo ak sama ziyaar ci sama sang bu tedd sañ sëñ Mountakha Bachirou xalifa général de murit di ñaan suñ borom yàggal ko fi te may ko wér. waaw tey euh, dañuy woote appel boo xam ne dafa jëm ci zone industrielle pose première pierre zone industrielle bu Touba ñu ci woo suñu mbokk yi nga xam ne ñoom lañ bokk bokkal euh, secteur industriel bu Touba muy waa Rasiat kuréel gi nga xam ne man maay présidente bi Raziat ñu ngi ciy woo waa Raziat képp ah di jiital ci woote boobu ah, directeur général Raziat SA sëñ Baara Mbacke ak kuréel gi yëpp ah, di ci woo waa adop ci ñiital Mouhamed Ndiaye adopté bi nga xam ne moo nekk gaar bu ndaw muy ñi nekk ci secteur industriel lu gerte gi ak mu ñoom Mamadou njaay mi secretaire général am ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ci pose première pierre bi nga xam ne ñi ngi ko fas yéene def alxamis le 20 à 15 heures ci ndigalu sëñ Mountakha Bachirou ak it ci teewaayu président de la république Macky Sall muy pose premier pierre bu am solo ndax ku nekk xam na ne industrie mooy développer dëkk commerce mën na doxal dëkk mais développement dëkk bu ñu koy wax industrie moo tax. Touba nag secteur industriel bi dafay am doole ndax tey bu ñu xoolee bu ñu recensé li fi nekk ci usines yuy liggéey ci wàllu gerte yi dem na ci 400 usines. yoo xam ne yëpp ay mini industrie la ñu ngi employé ay vingt et quelques mille emplois kon secteur la boo nga xam ne secteur bu am solo la ci développement dëkk bi ak yeneen industrie yi nga xam ne ñu ngi fi te nekkuñu ay industrie yu jëm ci wàllu gerte kon nag ñu ngi woo ñëpp képp koo xam ne emploi nga di yëngatu ki secteur industriel Touba ak li ko wër ñu ngi lay woo ci biss boobu nga xam ne mooy bisu bi nga xam ne ci la ñuy teg xeer wu njëkk wu jëm ci zone industrielle Touba bi ñu ngi ciy woo ñëpp ku dégg appel bi na ko jottali sa morom te xam ne eh, ñi ngi ñaanal sëñ si Mountakha Bachirou yàlla yàggal ko fi te may ko wér jërë ngeen jëf. kon nag ñoo ngi woo suñu mbokki commerçant yëpp bàyyiwuñu kenn xeebuñu kenn ñëpp daal bëgg nañ ñu teer suñu président ah ñu sémb bi ñu sémb ñu moom liggéey ko ndax Touba rek lañ bëgg mu mel ni du Dubaay wala Màkka ak yëpp ñoo ngi woo ñëpp bàyyiwuñu kenn. lawee daal noo ngi woo